asalaamaaleykum mbokk internetu bët set ñu ngi leen di nuyu di leen ziar comme naka ni ñu koy faral di baaxee di defee saa su nekk rek nee naa leen Lalla Aïcha ngeen di àndal xale bu rafet béy di sama caméraman bu ñaawul bi fépp fu ndaanaan nekk rek ma daal di ko fay fekk jël ko tey nag ñu ngi jógee ci Vienna tey taasukat yi la la la la diw bër bi jóge fa ñëw set ki nga xamante ni moom it kenn la ci réew mi ndaanaan kullu fadilin woy fi lu ne nag taasu fi lu ne sénégalais yi bëgg ko ba tey ji may wax ak yéen muy Secka yaakaar naa ne kooku kenn dootu ko laajte ci réew mi ñu nekk du ñu def rek lu mooy bàyyi ko nag mu nuyoo daal di sekk ak moom waxtaan ndax it gëj nañ ko gis Secka ñu ngi lay nuyu. waaw Lalla maa ngi lay fay maa ngi nuyu internet yu bët set point com yëpp di leen jox kenn ku nekk wàccuwaayam di kontaan nag ci def ak yéen émission ndax dama leen di suivre ngeen di def émission yu am solo fu mën nekk di internet bu bët set point com bët set na bëgg naa wax ak yéen jërë ngeen jëf. Euh, Secka fay nañu la. gëj nañ la gis sénégalais yi fan nga nekkoon ak ci lan nga newoon. waaw xam nga jamono ji moom euh, koo gisul rek jàmbaar dawul dafa wuti doole maa ngi ci li ma newoon ndax man ooma leneen lu dul musique ci laa nekk ci nga ma fekk nii incha allah te moom rek laa am waaw foo ma mën a ne daal xamal ni maa ngi ci sama ruq di di di préparer dara waaw mu mel ni Secka tey man su ma xoolee ci géew gi dama naan Secka dafa daw ndax taasukat yu bees yi xale yi ñëw macha allah di taasu ah, bari na sax lu xamante ni dañ koy faral di dégg seen taasu xam ne taasu woon nga ko loolu moo tax nga dellu ginnaaw wala. waaw xam nga xam nga at mu ne ak la cay war a xew ñun bi ñuy ñëw suñuy mag lañ fiy fekk suñuy rakk dañ ñu fiy fekk suñu rakk yooyu seeni rakk dañ la fiy fekk loolu moom moo musique ñoo ànd waaw. mais daal kon yaa ngi ci liggéey bi ba tey yaa ngi ci biir. waaw euh, nit ku ne ca lañ nga xam saa yoo àddoo ca lañ lay déglu man ooma lu dul musique maa ngi ci mais nag sax man dama am concept bu may liggéeyee man du daam seen génn na dama war a génne Pape Thiopet génn na dama war a génne ainsi de suite keneen génn non man damay dem ba sentir doog a génne noonu laay liggéeyee. Euh, taasukat yi ni ñu bëree lan moo tax nga tàmm ci ñaari ñaari tur yooyu rek jël leen comme exemple. non mais boo boo limee da ngay juum mënoo tudd ñëpp <coughs> man amul est-ce taasukat yi am naa ci koo xam ne am naa man ñëpp samay xarit la yàlla defal na ma loolu ku mën a doon ñi ma mag ñi ma ñi nga xam ne maa leen mag ñëpp Salam Diallo Mbaye Dieye Faye ñëpp samay xarit lañ man ñëpp sa rawati nag sama rakk yi nga xam ne mooy génération bees bi ñëpp samay xarit lañ man ooma ci xarma yàlla kii que ce soit euh, tey boo toogee di gis sa liggéey muy taasu nga xool taasu démb lañ daan wax ak lañ daan indi nga xool tey xale yi niñ ci duggee ak niñ ko jëlee ban jàngat nga ci am. waaw loolu nag loolu loolu loolu àdduna mooy dox tey ñu dañ doon defar benn morceau pour ñi ñi déglu ko il faut ñu dem ñaan yàlla pour ñu ñaan pour ñu tegal ñu ko ci télé tey bu la neexee sa morceau sa biir kër nga koy génne ñëpp yëg ko àdduna mooy doxe noonu euh, technologie bi moo avancé loolu sens suñu rakk yi doog a ñëw la mais nag wax dëgg yàlla di ko rafetlu nag parce que lépp looy def fekkoo ci kenn yow mii am na koo rey tey ba nekk présentatrice sa caméraman bi noonu keneen noonu kenn ku ci nekk métier ngay gis mu intéressé la nga yaakaar ci njariñ ba tax nga def ko loolu rek Euh, tey boo toogee ba taasu tey euh, euh, ku mel ni Ouzin ñëw ti ku mel ni Pawlish Mbaye ñëw si est-ce que yaa ngi leen di déglu. waaw parce que nag ñooñu ku ci nekk xam nga mbir mu nekk ku ci nekk li ciy sa wërsëg di ko lekk mbir mu nekk boo duggee ci làmb ji da nga fi fekk yaaw jaal. Balla Gaye mbër rek lay dégg Modou mbër rek mooy roi des arènes mais mbër la yaaw jaal mbër la waaye. <laughs> mu jeex tàkk <laughs> Ah, d' accord euh, mais Secka say terme dañ ko namm parce que Secka xëy xëy fi wuy fi ay lëmbalu naar ay ajal <laughs> war ma sa pointir hmm. mais yi xalaat yooyu naka la nan la la daan dikkee. non pourtant bu garaaw gi waaj a génn nag. bu raw yooyu. non na ko nit ñi xaar maa ngi moment bii may wax ak yow maa ngi studio di préparer loo xam ne bëgg naa Sénégalais yëpp jot ci du yàgg dara incha allah. Mm-hmm. mais mais mais ajal wan ma sa pointure. Mm-hmm. ak ak ak lëmbalu naar lëmbalu pël naka la la dikkee woon sa son waaw lëmbalu naar. sama benn xarit moo takk jabar ma war ko animer mariage man bokk naa ci ñi njëkk a tëgg jàkkaarloo Sénégal moo war a animer mariage bi fekk groupe Zakuar di fa tëgg ñoom ñoo war a tëgg ba pare man ma tëgg bi ñuy tëgg ba pare musique bi ñu doon tëgg nag des ci sam bopp neex ma quoi ma ni tey comme ay naar la ñuy tëgg lëmbalu naar la ñuy tëgg noonu la ma morceau bi dikkee comme ça. sama xarit bu tudd Yiro jóg moo doon takk benn naar xëlwa noonu la demee noonu la ma dikkee. mais ajal ak wan ma yëkkatil wan ma sa waaw xam nga xam nga sénégalais moom boo waxee dara day jël benn dara rek jël ko ci. mais avant may aja lan laa avant may wax aja lan laay wax ku mere sa jëkkër bul yëngatu ci sama géew ku sa jëkkër mere bul yëngatu ku sa xol neex ci ki ngay sëyal kaay wan ma ko loolu laa wax mais ajal bi rek la ñuy jël mais wan wan ma ko bi déggoo li ma wax ku sa xol neex ci ki ngay sëyal kaay wan ma ko loolu laa wax kaay wan ma ni sa xol neex na ci ki ngay sëyal waaw <laughs> mais <laughs> grand grand sa wéy daal dafa neex. est-ce que damaa bëgg na nga playaat morceau bi nga déglu loolu laa ci wax. ndax si si déglu naa loolu. Ah. d'accord léegi la mëlëpal bi nga génnee ko euh, ñu faroon ci yowu béykat yi gars yi demoon nañ sax ba porter la plainte ñu buggoon xam ban côté la naar yi nekk Sénégal la wala yi nekk Mauritanie la lëmbalu naar. naar yi nekk Sénégal la parce que man ci bi bi bi bi lëmbalu naar génnee def kii bu garaaw ci moment boobu dama doon dem Mauritanie di jouer ji di am problème ak waa naar yi nekk Sénégal te moment boobu dama doon jouer ji maa ngi nuyu au passage sama xarit Islim moom DJ Prince bu RTS moo ñu moo ko présenté woon jël naa ko fa ay spectacle ba léegi seen plainte boobu naka la mu woon. parce que nee na naar du lëmbal mais nag. ci mooy comme li ma la doon wax rek sànq ci morceau bi commencement bi dama naan salaamaaleykum maa ngi nuyu waa Sénégal ndax diggante Sénégal ak gànnaar benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar looloo tax ma jël way wii tuddee leen ko man intégration rek laa ci jublu woon mais nit ku ne nag ak ni muy déggee doonu nit nii ngay déggee yow da ngay wax rek mais doonu nit forcément nii nga war a déggee voilà. nga dem nga ba ci biir police bi toog ñu ne la <laughs> yaa way lëmbalu naar loolu la fi gars yi indee mais dafa la ree mais ah mais après ñoom bi ma leen expliqué. wax dëgg yàlla ooma ci benn problème à part xam nga géet nag géewal moom ku ko ni porté na la plainte day tiit mais bi ma leen expliqué noonu rek la dema d' euh, ma dégg ci sa benn waxtaan nga ne bi ngay dugg ci ci milieu bi euh, sa waajur bu góor nanguwul woon ba sax mos nay <laughs> taal say sabar yëpp fekk yaa ngi engagé programme mu jàmbur naka ngeen mujjee def euh, ba mu mujjee mujj naa nangu wala naka nga mujjee def moom. waaw xam nga xam nga du du du dafa bañoon musique mais daf ko xamul parce que man ñi ma xam xam sama famille man maa ci njëkk a def musique sama papa Tiwaawan la dëkk ay taalibe cheikh lañ comme ni ko nit ñi xamee mais ñoom xamuñu musique maa koy def nit nag comme xamu ko woon bugguloon ma def moom man gis fi may gis nii jànguma français arabe laa jàng ba sore ci mais li mu bëggoon tey ma nekk benn oustaz wala mais lii la yàlla dogal ci man. looloo tax nag fi nga may gis du ma tuux du ma naan parce que moom pour moom su ma demee musique automatiquement ci loolu la may yóbbu xam nga loolu la mais à fin dem na ba comprendre bi muy taal sabar yi dafa tombeek ma war a tëgg benn xew borom xew bi daf maa mujj yóbbu police sax ma dem ba police delloo ko avance noonu la demee. waaw mais mais mais après fexe naa ba mu comprendre ñaanal ma ci nag parce que tamit nit mënul def lu way juram buggul. mu ci dem fenn fii mais daal fexe naa ba dab bànneexam ba wax ko ni lii sama bëgg-bëgg la moom nag bu sañoon duma ko def mosu ko bëgg mais xam nga nit ak destin munu ci dara. Euh, euh, ku xam Secka tey xam na ñu bari jaar nañ ci moom rawatina ay fecckat rawatina ay awukat yu bari yu nga xamante ni génnee génnee na leen. Hmm. tey ñu ràññee ci kenn muy Daba Seye seen diggante yéen ñaar fan la tool cest Euh, euh, parce que am na benn grand théâtre boo xam ne amoon na fi ñi yaa ngi naan bi nga ñëwee présenté wu la du toog ba ñu dégg ci ay waxtaanam que ni jàppale nga ko te aw yow la njëkk aw yaa ko jàppale est-ce que loolu li nit ñi doon wax noonu lu am la. waaw loolu nag euh, laal la vraiment amul ma ci wax man ak moom amuñu benn problème sama rakk la sama jarbaat la mu ngi ci di liggéey maa ngi ruq sama ruq di liggéey wa salaam. yéen ngi déggante. wasalaam. <laughs> loolu mooy béy di loolu kay mooy déggante wuñu ah. <laughs> Euh, Saka ñu dégg ne yàggul dara am na ndogal bu wàccoon ci sa kaw euh, mooy sa kër dafa lakkoon ba jeex lan moo waraloon euh, lakk boobu. waaw ndogal la rek bu am ndax bërki de moo njaay dégg nga fi ku dee bërki de moo njaay dégg nga fi ku feebar loolu ndogal la rek bu dal ci suñu kaw ñu nangu ko wax dëgg yàlla. comme ni ndogal di dage ci bépp jullit loolu rek la. mais lan moo ko taal wala yéen xamu leen la dara ba ak ndax dafa lakk kër gi ba jeex tàkk. non dogal la rek bu yàlla dogal ci ñun mu war a am mu ngi am ci moment bi may préparer sama anniversaire loolu la woon rek jeex na ci jàmm. waaw mais tey est-ce que bi loolu amee am na yenn ndimbal yu xamante ni jot nga ko euh, yu ci mel ni sa mbokku artistes yi est-ce que taxaw nañ la parce que lakk ko ne xam na ne dafa métti. <laughs> waaw waaw mais nag Euh, bis mu ne sama moroomu artiste am ay métit ak i nattu loolu gra mook àdduna ak ànd mais nit ku ne tamit bu la c'est pas force que bu la dogal jotee rek sa moroomu artiste yi dañ ci war a jàpp wala dara am na ñoo mën nañ ko bañ a yëg sax wax dëgg yàlla mais ñu bari nag wax dëgg yàlla woo nañ ma ci ñu bari déplacé wu nañ ñëw ba sama kër ci ci samay xarit yoo xam ne yàlla moo ñu boole euh, muy sama xarit yoo xam ne ñu ma jege lañ ñu may jàppale lañ ñu may dimbali lañ ci bi mu amee rek moment bi mu amee ku ci ne taal nga sa oto ñëw ba sama kër vraiment. Euh, lan moo tax tey Saka duñu ko gis ci yenn soire yi nga xamante ni gars yi dañ koy tëgg parce que léeg-léeg ñu gis seen moromu artistes yi ñëw ñu ne diw bëf na wala diw ñëw na sama soire mais Saka kenn gisu ko ci yooyu. Mm-hmm. ah kay maa ngi dem ci soirée mais parce que man ci lay xaaree rek gis la fa mais wax dëgg yàlla ñi ma séqal dem seeni soirée maa dem seeni soirée mais mais mais yenn soirée yu mag yi comme ay grand théâtre ay soraano ay yenn programme yu mag yi comme ñoom penc mi ñu waale di tëgg ak yooyu duñ la fay faral di gis. non soirée waale moom vraiment vraiment dama ciy dem lu bari vraiment kooku moom sama rakk la sama xarit la nit ku am yëg ci man la maa ngi ñaan yàlla fépp fu artiste di toll yàlla na fa toll ku baax la ku joxe cër la ku ma la ku ma bëgg la maa ngi koy ñaanal yàlla li mu bëgg moo ko xam yal na ko yàlla defal maa ngi profité occasion sax nag di ko gërëm ci sama anniversaire bi teewaay bi mu ci teew non seulement teew indi teraanga bàyyi ay yitteem yàlla na ko yàlla defal jàmm barki Dembo Ndiaye maa ngi gis oto bi mu jëndal sëriñ bi yóbbu ko bu déwénee yàlla na man lu ko ëpp yàlla mën na ko sañ na ko yàlla na ko defal. mais Saka tey lan lañ koy xaar tey parce que artistes yi actuellement ku ne xam na ne grand théâtre moo xew ba tey tamit gars yi ñu ngi tëgg Sorano est-ce que Saka am na ay projet euh, grand théâtre wala Sorano wala bon quoi pas tey arène nationale sax. waaw laala foo ne yow ah. 22 janvier la woon sama. anniversaire bi jàll na mais li ñu wax. 24 janvier. non mais instant bi moom kenn talu dara instant bi li xew tey star mooy mbas mi. instant bi moom loo waay wax lu dul ñaan yàlla mbas mi jóge fi waxu lu am waaw. Euh, tournée internationale yi yaa ngi ciy dem wala gëj nga si. fi mu ne aéroport yi tëj na. tournée mais bu tijjee ak avant muy tëj. incha allah bu tijjee rek bu soobee yàlla war nañ dem États-Unis allah bu ñoo ngi ñaan yàlla yal na yàlla teggi mbas mi aéroport yi tijji euh, frontières yi tijji mais avant juste une semaine avant kii bi rek dañu waroon dem États-Unis dogal bi ñëw ci sunu kaw ñu koy nangu yàlla nañu ko yàlla teggil ci barke Serigne Babacar si suñu Serigne. Euh, kan ngay takk ñaareel. waaw du gaaw la. ndax lan. mbas mi laay xaar mu jeex. <laughs> kon kay kon kay mbas mi kay jarul dina gaaw ndax mbas mi li ci des matatul weer. kon di nga da ngay takk léegi. c'est sûr matul weer. matul bu jeexee rek boo déggee ni jeex na lundi jeudi ba ñëwal damay takk ñaareel. fan ngay la ko wax. kan la ko wax. mais Seka yow est-ce que boo takkee ñaareel tamit di ko mën a téye. waaye lu tax. parce que nga far ci aawooy tellement que yow yow amoo affaire ak ñetteel ñeenteel bon ñaareel de léeg-léeg nga sabaxal leen ci rek pour mu neex mais ku ne xam na ne danga nga far ci aawooy. Lalla luy sa problème. sama parce que jeexee damay takk ñaareel. <laughs> béy di way way way way way fukki album neuf yëpp nga woy ko sa jabar sa aawo. béy di. su mbas mi jeexee damay takk ñaareel yéen internautes yu bës 7 point com après coronavirus bi Secka day takk ñaareel. léegi sa diggante ak Awa lan la. amul diggante lu ma ci wax incha allah bu yàlla jeexalee mbas mi semaine bi ci topp Secka day takk ñaareel bu soobee yàlla. mais léegi bëgg naa nga nettali ma tuuti sa diggante ak Awa ni nga ko bëggee ak li tax nga koy way ba àdduna. non kooku sama rakk la sama xarit la. kooku man ak moom dootul ay soxna boo ñu fekkee sax da nga naan ñii sama rakk la sama xarit la ñu may ma ko ca ba mu méttee trop nag mu nekk ak man ba heure bi may ñaan yàlla njaboot gi ci gi ñu yàlla boole yàlla na ci yàlla teg loxo mais daal incha allah après coronavirus bi damay takk ñaareel. waxtaan bi la bëgg a taxañ noonu man xam naa ne takkoo takkuloo woo. non yow laal la da nga da nga da laaj wala da xam. xam damay damay seet. kon amul problème kon du yow laay waxal yéen ñi xamul te dima xaar di internet yu bët set point com après coronavirus bi Secka day takk ñaareel boole kook dinaa ko woy woy wu rëy nag. ñaareel maa la wax. mosal ma ci tuuti. non non non yow gëmoo ko sa yoon newu ci <laughs> sa ci. sa yoon newu ci. sa kaa da ngaa doo ci mus dara yéen internautes yu bët set point com daal jox naa leen rendez-vous après mbas mi damay takk ñaareel incha allah. d'accord boole koog way wu rëy nag. waaw euh, projet yi fan la toll tey ci lan nañuy xaar euh, Secka ci kanam bu mbas mi jeexee. waaw ñoo ngi si ngi studio di def benn morceau boo xam ne ñu ngi ciy bégal suñu soppe yi. ñu ngi ciy bégal suñu xarit yi ñu ngi ciy bégal suñu am di jàmm di leen am mbégte nag ci yéen vraiment parce que man damay suivre seen émission ci net bi wax dëgg yàlla li ngeen bëgg yéen ko xam yàlla ko yàlla def képp kuy internaute bu bët set point com ñi ngi lay ñaanal li nga bëgg yàlla na la ko yàlla defal mbas mi yàlla na fi gaaw jóge jërë ngeen léegi li ngay li ngay li ngay waaj a génne la waaw ci album laa ànd mais daal li ma la mën a wax daal mooy laala du yàgg dara incha allah di gis lu bees tàq Secka génn ko incha allah. d'accord euh, man bëggoon naa xam ci sa début carrière tuuti parce que da nga commencé woy gars yi gis nañ neen bu ñuy commencé dañuy commencé ci ay single wala commencé ci ay audio euh, yow nga ñëw rek génne album lan moo tax. waaw waaw xam nga man lag maa ngi nuyu au passage sama xarit. sama ku jàppale muy Modou Boussolé ancien ministre de la culture moo ma njëkk a jàppale ma am sama yëfu bopp man bari euh, bokk naa ci ñi nga xam ne avant ñuy am album am nañ seen groupe bu bopp sama groupe bu bopp moo njëkk a tëgg sama album mais nag ay jàppale woon la parce que ñun ñoo doon tëgg xew yi ngénte yi tuur yi et cetera ci loolu nag la ñu amee woon inspiration ba am suñu groupe bu bopp ci la ñu yàlla dimbali nag ba ñu dem. de ñu boo sama benn xarit présenté ma benn producteur sama benn xarit bu tudd Laye Diop présenté ma maestro musique Sénégal moom moo produire suñu album yëpp album yi ñu mës a def yëpp ñun ak moom ci ànd ñun suñu premier sortie album la suñu bërëm suñu deuxième sortie album la waaw ah. première sortie bi nga ñëw rek génne album loolu ñaata temps nga ko liggéey. waaw non non nag morceau yi doon tëgg ci xew yi rek la indi mooy comme ay lëmbalu naar yëkkatil ma xool sa pointure Awa Ndiaye morceau yooyu la ñu indi rek def ko mooy suñu premier album bi ñu njëkk def moo doon lëmbalu naar. tey lan moo la dugal ci way nga xëy rek ne da ngay taasu sa jamono yooyu taasu bariwul woon lan moo la ci dugal ak ban lan lan nga ci xalaat. waaw li ma ci dugal euh, man théâtre laa doon def. dafa am benn ASC bu tudd ASC Mengo nekk caaro yi ñoom ñoo final woon jël coupe bi di féete seen final El Hadj bi woyoon raga raga juma soo ma gisatul may leen benn concert bi nu ñëwee Karim Sow présenté ma El Hadj fekk El Hadj di jouer benn morceau bu tudd Baye Goño woo ma ci kaw c'était la première fois ma yéeg ci kaw seen léegi nag di kebatu après El Hadj loolu ma doon wax ndeke neex na ko le lendemain mu ñëw sama kër ni ma dama bëgg liggéey lii moo dugal ci musique ma commencé nag loolu moo tax ma xaw a am benn fort tuuti ci dio parce que man ci dio laa jàngi musique waaw. lan moo la génne ci théâtre bi après. loolu après loolu rek laa commencé nag di ànd ak El Hadj Ndiaye ak waa Enda ñuy dem ay tournée du jeu ji fu ne ay concert mm-hmm. après ci laa jóge nag am sama groupe bopp muy dina ma yëngal. Euh, Saka est-ce que ba tey mi ngi yor groupe am est-ce que ba tey euh, mi ngi ci jàkkaarloo yi ku ko soxla dina pare pour tëggal. ba léegi ba suba ba sànq maa ngi ci euh, léegi nag ñun dañuy faral di def bu ñu invité nit ba waxtu wi des tuuti dañuy waxtaan ci li nga xamante ni mooy actualité bi am ci dëkk bi barki démb gis nga xale yi wàcc ci mbedd mi def fi grève ba am ku ci ñàkk bakkanam ban gis-gis nga ci am. waa gis-gis bi ma ci am mooy. réew mi dafa metti toll na foo xam ne il faut nit ñi ànd ak seen xel parce que tamit lii lu fi yàlla wàcce la wàccewu ko Sénégal kese wàccewu ko Afrique kese mais àdduna bépp la ko wàcce euh, lu daawul am nag su amee ganñaa Euh, sénégalais xamul lii loolu moo tax ñu réactionné nii mais ñun lii du suñuy valeur lii du li nit ñi xam ci ñun lii du li nit di xaar ci ñun may wax encore une fois xale yi réew mi ñaxtu mënta ñàkk ci réew mais ak ni ngay ñaxtoo waaw Euh, tey fan yi la passé yàggul dara gis nañ fi ay xale yu jigéen ay xale yu tuuti ñu nekk ci appartement di def naka su noonu coow li bari woon ba pëlis teg leen euh, loxo ak ku ci mel ni rangu euh, ba ban message nga ciy jàllale ndawu réew mi. waaw ndawu réew bi liñ leen li li ma li ma leen di wax rek mooy. dafa jot nit ñi veewaat ci seen njaboot waaye dafa dafa jot tamit xale yi jàngaat seen i seen culture seen cosaan ak seen aada parce que lii xale yi réew mi di def du lu ñu moom ñun moomuñu lii ñun xamuñu lii encore une fois ku mën a doon tamit ñi ko def maa ngi leen di ñaanal yàlla xel mii ñu am yàlla na ko yàlla jële ci ñoom te nit ñi tamit yaraat seen njaboot yi te fee ci ñoom xam ni lii daal ñun du suñuy valeur vraiment Euh, dégg naa ministre bi jàppale na leen ci ci wàllu corona bi am ay koppar yu mu yëkkati ndax jot nga sa wàll. wax dëgg yàlla jotaguma sa wàll li nga ci am rek laa ci am rek laa mais kenn woowu la. wax dëgg yàlla ministre bi daal gis naa ni seeti na Thione Seck seeti na Youssou Ndour defe naa ak Baaba waaye jàpp naa ni am na ñeneen ñu mu a seeti. tamit bi mu jógee foofu war na leen a seeti ndax ñooñu kat bu leen seetiwul yàqu ko ndax ñu ñii suñu demee ba bëgg musique yàlla ak ñooñoo tax waaye bi mu leen seetee ba pare waroon naa seeti seeni rakk. ñan ñan la waroon a seeti ñi nga xam ne bu bu leen seetiwul yàqu ko. non ñëpp parce que man ñooñu rek laa gis ñu seeti ko mu seeti leen mais gis waroon naa seeti ñeneen yi nag yeneen artistes yaa ngi fi yeneen. waykat yaa ngi fi yeneen géwal yaa ngi fi bi mu seetee ñooñu ba pare na waroon na leen seeti. ci ñoom ñetti ñooñu rek la ko yemal. man ñooñu laa gis. wàllum koom gi tamit weccet bi déggoo ci dara. yàlla dégg laa waaw. yaa ngi xaar sa wàll. waaw bu baax buñ ma woowoon léegi ma dagg émission yu dem. <laughs> d'accord ayca waxtu wi jeex na ñu lay bàyyi nga tàggatoo gaay waaw maa ngi kontaan trop nag lalla. ci émission bi ñu def ak waa Bët7 point com di wax ni yàlla jàmm yàgg yàlla na fi mbas mi jóge xale yi réew mi li ñu moom mooy ñun ñëpp teraanga la ñu mbàkkee Sénégal teraanga la am yal na yàlla def jàmm ci réew mi nawet bii ñuy waaye dugg yàlla na ko yàlla naatal ci barki Serigne Babacar Sy jërë ngeen jëf. ay ca mbokk internet yi di ko jaajëfal bu baax a baax euh, moom mi nga xamante ni moom la ñu dalaloon tey euh, muy Secka gis ngeen li nga xamante ni waxtaan nañ ko ci carrière waxtaan nañu ko tamit euh, ci ci li nga xamante ni fi la réew mi toll di leen jox dig daje nag xam naa ne beneen émission lay doon ak beneen daanaan bu may dajal waaye laataa boobu waxal gars yi ñu abonné ne leen nañ abonné bët set bët set point com ku bëgg a dégg wax ju set abonné fa d'accord mais grand gëj nañ dégg sa taasu may ñu tuuti. non non album bi rek laa la. doo dégg dara album bi rek. doo ñu may sax Awa Ndiaye dina ma yënga. damaa ne ci mbas mi album bi rek. <laughs> ay ayca di leen jox dig daje xam naa ne beneen émission lay doon beneen daanaan bu may dajal euh, ñàkk abone wóorul ndax namit fii la lépp di leeree euh, gën a gaaw gën a leer gën a yaanji Amina sama monteur bu ñaawul boobee maa ngi koy bégg lu baax bu baax a baax waaye Babacar Si Fàllu moom itamit maa ngi koy béggee ndax it euh, ci la bokk waa kër laa la Aïcha xale bu rafet dama Diop borom Paris la France maa ngi lay béggee bu baax a baax di leen jox dig daje beneen émission lay doon beneen daanaan bu may dajal jërë ngeen jëf